comité d'organisation bu mosquée Massalikul naan ak kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñoom nag tey jii daal di woon nañuy amal ab réunion jëmale ko ci li nga xamante nii mooy wàccaay ubbite lii di mosquée Massalikul naan li nga xamante nii ñoo yor wàllum kaaraange gi ak ñu yor li nga xamante nii mooy ndox mi ak yeneen i agent ñoom nag daal di woon nañuy teewee boobu lay réunion kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di dalal xelu ñi nga xamante ni ñooy organisateurs yi. loolu nag la ñu war a mën a fan yi Euh, seq ak aljuma ba aljuma sax ba samedi ñu mën a xool naka lañ gën a mën a organiser en tout cas lépp li ñu fi prévoir comme programme donc loolu moo doon solo si ndaje mi bi ñuy laata ñuy tàmbali am na engagement yu administration jëloon donc ñu ñëw tey autour du gouverneur ak l'ensemble des service régionaux ñu xool kenn ku ci nekk fan nga toll ci engagement yi nga jëloon. moom Aly Ngouille Ndiaye xam ne ni sax lépp daal dina yemb gannaaw bi nga xamante nii dafa des ay coppite yu ñu war a amal jëmale ko ci wàllum kaaraange gi. mais am nañ yaakaar ne. Euh, engagement yëpp danañ ko mën a respecté presque yëpp respecté nañ ko sax il reste juste quelques dispositions sécurité yoo xam ni moom dañ ko day continuer rek ba bés bi donc am nañ yaakaar ne aussi instruction yi ñu joxe police bi danañ ko mën a mettre en œuvre pour que lépp mën a jaar ci yoon. inauguration bu mosquée Massalikul naan ñu war ko amal ñaar fukki fan ak juróom ñaax ci weeru mbar bi ci teewaayu ki nga xamante ni nii mooy xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké ak ci teewaayu ki nga xamante nii mooy njiitu réew mi. di Macky Sall